brick paradise wala brick millionaire you know brick millionaire quoi you know because three videos in a month trois vidéos ci benn mois lañ ko def you know what I'm saying sama boy ñoo toog quoi man leen Akhlou Brick daal ñu ngi concert mais li ñuy def nii déjà vu la quoi génn pain au lait man a man a man a déjà vu quoi you know what I'm saying li fi kii waxoon kii rap di rap kii way di way amul différence ñu ko riifu waxee woon quoi mais ak def ko bi def ko génnee what de fuck is that I'm telling you ah non son bi son ma gaañ Akhlou Brick depuis kii bi mbay pétaaw bi maa ngi dégg naan mbay pétaaw bi ba léegi gars yi defuñu ko nañ dëgg mbay pétaaw ba léegi gars yi ajjeeguñ ko waaw waaw li mooy loolu te le problème mooy maanaam aada dafa amul compétition quoi mais Dèjà amul compétition mais Dèjà ñëwaat na bu ko seede mu doon Dèjà ñëwaat na ci compétition si niveau Saint ñëwaat na ci niveau Kine Sabodé ah Dèjà ñëwaat na kii ñëwaat na ci niveau aada mais Dèjà ma ñàkk suma son bi trois techniques la ci génn quoi ah non trois flow ci benn son Dèjà loolu la def loolu Dèjà yaa mën a rab waaye non allo bëri mooy genre genre fasu course yu réew yooyu quoi bu leen neexee boo leen ne daw tey duñu daw mais boo nee tey daw ñu ñëw daw lu ñu deful ci rab ñoo ko bëgg non def na waaye ah am na rapport yi boo xam hmm, def ko waaw def ko hmm, dama def ko rek non son na trop am telling you def ko vraiment son bi nice na moom temps yi la du ñoroon dafa ñor xumb aara dafa ñor xumb moo war ko rasulullah mais son neex na def ko j'ai bien aimé waaye son bi neex na mais déjà chapeau non non non non non non déjà am na koo gaarwaale de xam nga ko ma ko tooñ mais non déjà li nga rab ëpp na ma dama ragal naa jinnee ko solu sax mais aara moom léegi moom léegi aara moom nga def lu ko neex aara moom dafa ñor xumb quoi doon lamb kenn du ko wax lu muy bëre day ñëw rek teg ci quoi def ko dafa gars yi dama leen le 22 stade Caroline Faye Brick Paradise Brick millionnaire trois clips ci benn moom wala nag génne seen stade boobu xam nga ay raaraam non yéen a ngi dund nag macha allah yàlla laf cat laf cat waaw vous avez intérêt da ngeen waane nag quoi chapeau à Chadigan ah. clip yëpp nice pain au lait yëpp nañ quoi mais man def ko mooy sama son quoi Ah, pasal bunyok kau mendalu kira dirap kira way di way